dikkati na suur national day moo am ci réew mi critique yéen xam xamle ko tribune yéen kaay ne ko déet mangaan gi kay laaj wa wasamp moom moo di nees def ba daal di koy dakkal ci réew mi suñu doom yaa ngi jéem dem Espagne ci anam woo xam ne doy na waar lool te xam na ni nag dem gi mën nga yegg mën nga faatu terewul ña ngay dem laaj wa mooy ma na la naka la ñu mën a dakkalee lii ndax nag loo ci man mënti déggit lekketu kese moom mënta naxi bay naka nga mën a waxee xale yi toog leen ci réew mi waxtu woowu amoo lenn loo xam ne teg ko ci seen loxo ngir xale yi xam ne buñ toogee ci réew mi mën na la cee génn ay dige rek dige yoo xam ne naa la naa yoo xam ne doo mësa turbine naan maan xale yi daal di ñàkk yaakaar ci seenum réew yaakaar yoo xam ne ba mu yànkeekoo daal di nay yàgg lool waxuma la yaakaar ci réew mi kese de waaye seen ëllëg ci boppam amatuñ ci yaakaar xale yi nag jël seen dundu di saax-saaxee di dem bitim réew di fa faatu nag ci biir géej gi ci anam yoo xam ne mitti na ñaaw na Pierre Mboup ci Vox Populi naan leen ak lu mën a xew waxtu wi sedd wii ngeen di da ngeen di dem Europe tay la seenu bakkan la sedd na boole ngelaw yoo bari na lool ñi nga xam ni ñoom ngeen di verser seen xaalis ñu leen di yóbbu ñoo leen di sànki faat leen ay bébé yoo xam ne ñi ngi faatu daal di suux ci ndox mi kenn gisatu leen ay xale yu jigéen yoo xam ne seeni cër daggatoo na ay dund yoo xam ne yàqu na Pierre ne fi mu ne li am ci géej gi waxuñu ci waaye ñaaw na waaye jur wii daal na maa bàyyi sama ñaari doom ñu daal di dem waaye naka la ñu séqi jéego ma xam ni def naa erreur jamono ji gis naa seeni vidéo xàmmee naa ci samay doom faatu nañu fu ma nekkul denc nañ leen fu ma nekkul xaw ma sax fuy seen bàmmeel lii ñaaw na Boubacar Seye Horizon Sans Frontières ne loo ci manti déggit nguuru Sénégal moom bu nee dafa bëgg andi saafara ci lii saafara gi moom du police a koy régler du gendarmerie moo koy regle ci weneen anam rek turbine yéene kaay mel ni ku naan kon ban anam ni xale yi toog leen te tegoo dara seenug loxo daanaka xaru la ndax duñ la dégg Maguette Gueye entrepreneur ci direct news naan yow mi nga xam ne yaa war a yor Sénégal 2024 yow laay waxal màngaan gi ci réew mi metti na jéggi na dayoo ñàkk yaakaar ak lees teg loxo ci réew mi nag moo leen yóbbee lii ak jéego xam ne gouvernement gi fi nekkoon teg na ko ñàkkum xëy moom ñëpp xam nan ni moo am ci réewum Sénégal te ñàkkum xëy moomee dafa dem ba dagg xolu ndaw yi ñu ci bari ci ñoom am ay diplom ñu ci bari ci ñoom am seeni talent waaye France mënuñu koo jëfandikoo ci réew mi màgget naan leen xoolal ma livreur yi rek ñi ngi joué rôle bu rëy ci réew mi waaye jafe-jafe ñi ngi koy am ci réew mi ma nga naan futur président bu Sénégal jëlal ay dogal wan ndaw yi nag lees teg loxo waaye tam lees teg tànk faaw nu joyantiwaat réewum Sénégal daal di créer ay emploi te buñ ko créer xale yi mën caa toog mu mën caa yàgg ngir ñu amuk koom yow mi bëgg yootu réew mi màgget gay naan kon yow laay waxal yaakaar gi ñu am ci yow wala vision gi ñu jàpp ne mën nga faa yóbbu senegal dee tax yaakaar juddu ci yow ba ñu fal la te bës bu ñu la falee nga la waay tabaxalal avenir gu rëy ndawum réew Sénégal 24 heures yéen kaay naan man njiital car rapide prestige ab bataaxal daal la daal di xaatim yónnee ko ki nga xam ne moo nar a doon président bu réew Sénégal ëllëg l'évidence yéen a kaay mel ni ku naan man ndax dana yomb ndax nag Sénégal gii ñi ngi nar a sóobu ci daara yu kawe yoo xam ne ren njàng du fa am 24 heures yéen a kaay naan man Cheikh Anta Diop bu ndakaaru misaal la ci réew mi quotidien naan kon crise ba day ma gën a métti ci UCAD bañ a ngay laam-laamee nag njàng boo xam ne ci ay ordinateur les ko nar a jaarale le soleil yéen kaay naan maan boobu président Macky Sall mi ngi diggante Paris ak ci warum financement l'évidence naan kon paj bi nar am gàllankoor diggante ànd gësam ak ministère de la santé l'observateur naan kon ñiy faju ci clinique yi jël leen seen matuwaay ndax nag téeméer boo jël fukk dana yokk ca la ngeen daan fay paju ci réew mi métti ba noppi diabétique yi moom ca Abass Ndao ñi ngi xamle bés bu yàlla sàkk benn ba ñaari baaraam dina fa ndax diabète l'enquête naan maan ñu moytu it ndax boo moytul xuy xëpp dana tàmbaliwaat ci réew mi ak Senelec tribune yéene kaay naan kon Baye Fall ba ñu fàtt ca Touba xalif général des Mourides nee mbir mi na ko ci loxoom ña nga xam ni it ñoo lakkoon borom ñaari turi ca Kaolack yéene kaay des bi naan maan juróom ci ñoom sursu lañu am ba ñibbi nañ seeni kër l'observateur naan maan ci réewum Sénégal gii Aïssata Tall Sall ministre de la justice daal dinay petoo ndànk fank ak ñaar fukk ak ñaar ci ay procureur ci réew mi lan moo xew ci réew mi laas naan kon xanaa Pape Djibril Fall mii xamle ni candidature bi teelul waaye Khalifa Babacar Sall mi naan màngaanu ndaw yi lu njiit njàngurug Sénégal moo ciy njaag 24 a kaay naan man ci tabbinuk Abdoulaye Sylla gi Amadou Ba Pastef ma ngay xamle ni fi toll nii nag caxat-caxatee nañu loi électorale bi ci réew mi ba nuppi tribune yéen a kaay naan kon moo taxit am na marche bi yoor yoor naan kon ab plateforme la boo xam ne ay leader opposition bi ñoo ko jiite ñoo bëgg a weñ loxol Sall ngaari lam tooro Bourguédé ngir Ousmane Sonko mii mën a doon candidat ci élection présidentielle yi waxtu waaw tribune yéen kaay daal di samp laaj Karim Meïssa Wade nag anamu gannaaw bi nga xam ne saa bu nu yeewoo ñu xamal ñu ne Karim sa wadd mii dana delsi si réew mi laaj ba samp tey jii moom mooy Karim sa wadd ñibbiseem ci réew mi lu koy sabab ak kañ la doomu Abdoulaye Wade ji nar a teg tànkam ci réew mi waxtu woowu Tafsir Moussa Diop njiital mouvement ADPM ca Mbour Ndour candidat ci élection présidentielle ci réewum Sénégal daal di xamle ni Sénégal fi mu ne fi mu toll ci jafe-jafe ak métit centriste dong la mën a am ngir mu joyanti réew mi jaar-jaaram ci lycée Demba Diop bu Mbour ba université Oklahoma ca États-Unis yéeni kaay bi naan maan ba ci bëgg gi mu bëgg réewam ba sampum ndëndëm waaye tam politique gi mu indi ngir joyanti réewum Sénégal suqali ko yéene gi mu am ci soxna yi ba daal di tàggat lu ëpp junni ci ñoom waaye tam immigré bi nga xam ne tey taxaw na ni immigration clandestine jaar ci gaal gi du solution bi dëgg-dëgg am ni fees fa ndaw yi jàmm daal di am ci réew mi yéen i kaayub dee média bi naan maan lañ doon ñaxtu jamonoy Senghor ba tey ci jamonoy président Macky Sall papa Ibrahima Ndiaye bu feeraa matale na ko muy tali bi dox diggante Sandok Sanjara Njaraaw ak Susung fii fukki fan ak juróom ci weeru décembre askan wa war caa jot njaga ñaaw it war caa bénéficié wu ca diwaanu Pikine it lu ëpp benn milliard ñu daal di koy génnee ngir daal di yeesalaat CM Fadilou Diop bu mbaaw yéen kaay bi naan maan l'école boobee gannaaw bi nga xam ne tàmbali woon na yàqu yaxeet fas nañ ko yéen a yeesalaat ak ñaar fukk ak ñaar ci salle de classe yu yees lu toll ci juróom benn téeméeri million ñu war ko caa def la ca des nag war a nekk équipement bi moom Abdoulaye Timbo yéen kaay bi naan man gannaaw bi dem na xooli ay lycée yu ci mel ni daagu daan ca Caaroy CM Tidiane CM Fadilu jóob ak CM Jida Caaroy kaw niki noonu it CM bu mbaaw ak lycée bu mbaaw ñu war a jël ñeenti téeméer ak juróom fukk ci million daal di yeesalaat collège ba nekk ca mbaaw Maguette Gueye mel ni ku naan kon ndax solution la xale yaa ngi ami lijaasa ci réew mi terewul ñi ngi màngaani turbine yéen kaay naan kon la ma waxoon rek leketu kese ci boppam moo nax ku tibay te mooy dëgg l'observateur naan kon rax ci dolli nag yoon wanu jël ngir saafara ko du yoon wi tey jii dañu ne dañuy criminaliser dem gi ndax loole mën naa nekk saafara ba dem gi daal di dakk ci réew mi war Walf ko naan kon en tout cas trafic bu mag moo ci nekk fi mu toll nii nag ay sénégalais ni ki noonu ay espagnol ñu ngi leen di jël di leen yóbbu kaso te loolu lépp nag ci màngaan gi la waaye façon bi nga xam ne ñu ngi yóbbu xale yi ñuy faatu ci ndox mi ci waxtu wii